asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki jàkkaaruñ ci duñu seetaan rawatina ci biir réew mi ak bitim réew di ànd ak seen site internet murit point info euh, murit point info ñi ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci di leen ziar mu mel ni nag euh, ni ngeen gisee jamono yi ci ginnaaw yëpp ñu ànd ak yéen ci ay interview yoo xamante ni spécial lañ koy def ci ay leader politique yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique ndax kenn ku ne xam na ne waxtu yi ñuy àddoo ngeen di teewlu ñi ngi ci période campagne bi nga xamante ni mooy campagne bi ñu war a def ngir référendum bi nga xam ni président Macky Sall namm na ko amal ci réew mi mu mel nag bi ñu duggee ci campagne yi président de la république monsieur Macky Sall ñëw na fi waaye nag yeneen leaders yi politique yi nga xamante ni bii ñooy Front Non ñoom itam ñëw nañ fi ànd ak ay délégation yu bëri yoo xamante ni ñi ngi ñëw ci dëkk bu sell bi nga xam mooy Touba waaye nag ñu gis itam boobaak léegi ñi ngi nemmeeku lenn ci ay jafe yoo xamante ni mi ngi am ci wàllu politique bi ci fii ci Touba mu mel ni tey nag dañoo daloo kenn ci ñi nga xamante ni ci leader politique yi la ñu bokk di madame Mbacke madame Mbacke nag suñu ko waxee ñu bëree bëri xàmmee nañ ko xam nañ ko muy bañkat boo xamante ni mi ngi ci parti bi nga xamante ni moo di APR ànd ak président de la république Macky di ko liggéeyal ci dëkk bi nga xamante moo di Touba rawatina ci côté jigéen ñi. kon madame Mbacké dañ lay jox kàddu gi rek nga nuyoo ak mbokk yi su ko defee nag ñu ñëw euh, soobu ci waxtaan wi bisimilah. maaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di commencé di sant yàlla bu baax di wax alhamdulilah rabil alamina bi ma sante yàlla julli ci yonentem bu tell bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi sant sama ñaari waajur yi nga xam ne tey bu du woon ñoom du ma fi toog. di ñaanal say Sidi Maxtaar yàlla may ko mu gën a wér ndax li muy liggéeyal ci askanu murit ku ne xam na ko mu continuer bu baax di ñaanal sunu xalifa daaru musi bi sëñ Abbas yàlla may ko moom tam gudd fan ak wér di ñaana sëñ Safa Absa yàlla may ko moom gudd fan ak wér di ñaanal sama borom kër bi nag bu baax ndax lii lépp moom la ndax su ma tere woon tey jii lii tey du am te ku ne xam na ne man ci ndigal rek laay wéy lu ndigal àndul bu ànduma ci. station boobu nga xamante ni bii def nga ko ak nuyoo bi nga xam ne euh, def nga ko euh, ñu bëggoon nag euh, soobu ci li nga xam ni moo di waxtaan wi ñu gis ne jamono ji ñuy àddoo ñu ngi ci digg-digg campagne yi ba mel ne ni suba ci vendredi bi incha allah ci minuit la ñu war tëj campagne yi. ñu bëggoon a xam nag tey yéen seen bilan bi nga xamante wala tam seen bilan bi nga xamante ni nam ngeen koo amal waaye nag taxawaay bi nga xam yéen am ngeen ko ci biir campagne Moussa fi ñu ci toll moom neex naa wax ndax ñun xaaruñu ba campagne ubbi rek ku ci mel ni man madame Mbacké pour di fësal liggéeyu président ñun yàgg nañoo nekk ci terrain bi ndax politique kenn mënu koo def ci defoo développement. ñun de ku ñu xam ci développement nga ñu xam bien que fonctionnaire la mais ku ma xam man ku ne li tax ñu gën maa xam ci développement lan ma xam artiste développement la maa ngi yëngatu tamit ci lépp lu jëme dëkk bi kanam. lu mel ni projet PNGD bi ci laa bokk muy wàllu mbalit bi maa ngi ak sama groupement bu ñuy wax Ndaayaan waa kër Ndaayaan Awa Balla la loolu sax moo tax ba ma jiite union locale GPF de Touba. ci loolu tamit ci laa sukkandiku ba sama naataango yu bëri yu koy defee di wut ay formation di ko indi yow am na formation boo xam ne yow fekkee nga ko ci micro jardinage boo xam ni euh, docteur Macoumba ma moo ko fi indi woon mm. maanaam mbayu taabal yi ak ñu boole ko ak ganaar yi di ko bay. loolu am nañ ci résultat ndax ñun ci màggal Touba gi rek jaay nañ ci téeméeri ganaar ak lu topp ba fi mu nekk dugalaat nañu te dañu bëgg mu continuer maa ngi ci formation bërki démb euh, Mamadou Talla ci baaxam ministre Mamadou Talla boole na ma waa ONFP ba ñu may ma ñaar fukki jigéen ci commune Touba yoo xam ne maa ngi leen di yóbbu ci euh, ITA e ITA e ku nekk xam nañ du lu ndaw. ba benn vague bu njëkk bi dem nañu avant campagne bi def seen cinq jours de formation ci wàllu segal beneen vague bi ci mois d'avril bii lay dem am nañ tam yeneen formation yu bari yu ñuy def kon ñun tam xaaruñu ba campagne bi ñëw rek ñu nu jigéen ñu jóg leen ngeen ànd ñu voteel ñu déedéet jigéen dafa am ci loo koy tënk loo koy téewe muy lu mu mënul te yow nga xam ne mën nga ko nga dem fexe ko ji ko indi ànd ak ñoom jàppale ci ndax président Macky Sall loolu la ñu sant ñun ñukoy jappalé Té avec le programme PSE mënut a réussir programme bi sans pour autant jigéen ñi émerger Té jigéen ñi pour ñu émerger amna fuñ koy jaar muy premièrement ci formation bi formation encadrement suivi après financement soga am muy autonomisation de la de la femme pour ku ne dema sa bop ndax réeréewu leen mbir ñu dëkk bu mel ni Touba boo leen xëyee rek bi ngeen ñëw fii ñëw sama kër gis ngeen jigéen ñi ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoo nekk ci marché yi ñoo nekk ci garage ñoo nekk ci luuma yi ak feneen ak feneen gàddu seen ay palaat muy lu ndaw loo xam ne bu ñu xëyee jaay ba ngoon jot daanaka li ñu yóbbu seen kër du bari même jigéen ñi ngay gis ci marché bi ci liggéey bi métti ñuy xolli gerte di segal segal boobu sax moo taxoon ma yóbbu nit ñi iteya ndax tamit euh, nit ki dafay progresser ak seen machine yu accueil gi yi ñu yoroon dañu dañoo bëgg ci machine 6 millions 8 millions yi jigéen ñi sotti seen gerte rek jikki-jikki gis diwlin loolu am na te ñu ngi ci yoon wi ndax formation bi jàll na pare après machine bi moo ciy des. waaw madame Mbacke ñu bëri surtout waa PDS yi wax nañ financement yi lépp ci euh, PDS kii ci APR rek la yam waaye yemu yeneen jigéen ñi nga xamante ni ñoo ne ci dëkk bi wala ñu bokk yeneen parti gis ñu ci seen bopp. waaw ndoxalee mais yow mën nga maa seede. formation bi ñu defoon ci euh, commune ba lañ ko defee cent cinquante femmes est-ce que opposition bi ëpp ñu ci woon seetal bu baax cent cinquante femmes yi ñu doon est-ce que opposition bi euh, ëpp ñu ci man nee naa la de développement la femme de développement bokkul ak femme de politique bi may dem ITA du yóbbu ay formation am na benn femme bu nekk sama koñ du ma tudd turam mais moom xam na jël naa ko yóbbu ko ci 10 femmes yi koo xam ne moom PDS la yóbbu naa ko formation bi mu ñëwee dafa wax carrément li musta am ci régime PDS soo gisee ma dugg sax si développement PDS bi ñu fi nekkee ñoom opposition euh, actuelle opposition bi ñu fi nekkee dara daan na fi xew ba ñëw daawuñu ko sax yëkk dañ daan jël responsable politique jox ko ay fonds jox ko formation mu formé ko ci biir këram ma formation nu ma ko defee sama biir kër dama ko defee ci commune ba wala ma dem ci SEDAF Mbàkke ba ñu defee ju ko fa ci loolu lañ nekk kon nag loolu dañuy wax rek financement yi jot ñëw. day financement liste ministre de la république xamul opposition xamul pouvoir ministre de la république le ministre de toutes les femmes Nous, en tant qu'artiste de développement euh, bu ñuy liggéey tamit dañuy développement sans distinction de parti politique ndax ëllëg loolu mooy tax sax nit ki rus la ba ñëw ànd ak yow boo ëllëgee nga woo leen est ce que xam nga leen man du ma mobiliser mukk ba jox doomu aadama xaalis ñu ko duggal ci kaar bi li may wax ñi àndal petit ñu koy seede am na ko toog ni mën na ko seede du ma mukk ba bërki démb président de la république di ñëw ñu dem Mbàkke amul benn nit boo xam ni bi may dem jox naa ko ni ko duggal ci kaar bi ci kaar yi ma jox la xaalis amul kenn koo xam ne bi mu ñëwee jox naa ko xaalis mu dem ba ci géwél yi nga xam ne loolu lañu am may ànd ak ñoom ndax su may ànd ak nit damay ànd ak ci dëgg loolu moo tax aw ma benn fond bu ma distribué mais ku ma woo nga wisi ma. Euh, dem na Mbacke Kajoor sante xalifa bi. Hmm. ñëw fii buntu kër yu bëree bëri mu dem fa. waaye li ñu ngi seetlu mooy fu mu dem ci dëkk bi ay yuuxoo non non non yi takkar naase yéen yéen a liggéey wala président la waa Touba xooli bët boo xamante ni euh, mënaguñ ko wala suba léegi. wax na. quelques individus quelques personnes yoo xam ni. ñoon dañ doon jéem a sabote mais président Touba mun ñu ko xoole beneen bët lu bët bu yiw sëñ Sidi Martar, sargal na ko nako, na ko teral nako. ko bi mu ñëwee fii it kër kilifa diine bu dugg maa ngi ñoom ñoo àndoon teeru nañ ko sargal nañ ko teral nañ ko ndax la mm-hmm. président 2012 a le pouvoir bi nous sommes en 2016 début 2016 mais li mu fi réalisé à Touba amul ben président de la République bu ko a def commencé ko ci président Ablaye Wade Xol leen ci plan assainissement Xol ci plan yep. mais ba ci di ci mujj Ila Touba bi rek dafa doyoon seuk 400 et quelques milliards. te loolu am na lu ko jiitu am na lu mu fi fekkoon ay milliards fay ko dégg ngeen sunu maire bu baax bi keroog bi muy dimbali jigéen ñi moom tam dama koy remercier au passage. bi politique ngay wax bi bi ngeen bi def rentrée politique bu leer ni Macky lay jàppale kay waaye itam. non mais li mu yor politique mayu ko ko ba muy liggéey liggéey métti na. waaye léegi ñëpp xam na ne politicien bu mag la ca mi ngi ci mi ngi ci APR. bu fekkee bu bu financé ci APR ñaare ñaare. juróom ngay jaar mu su fekkee ni politique.

chef du village nangam chef du village nangam nañ jox nangam ñu bàyyi euh, euh, fa nekk ñëw ci ñoom rek laa dégg. kon yow da nga sama tànk dafa bëriwul ci commune ba demal commune ba xool réunion ba ñu doon def keroog ba avant ñu distribuer euh, remise symbolique matériel yi. 10 mm-hmm. millions yi. douze machine moo fi nekkoon moom moo ko yokk def ko ba vingt machine kër ba mu gisee mbooloo bi macha allah def na ko trente machine opposition baa nga fa woon de waaw boo ko gis soit PDS nga fa woon kilifa yëpp nga fa comme président de la république sax jaaxaanaa lay tëdd tëddee comme ministre de la république jaaxaanaa lay tëddee bu jotee dañuy politique développement bu jotee def développement mais pour tontu ci li ma la wax ci ñëw président bi ña fa nekkoon di yuuxu ay xale yu ndaw la ngay doon boo leen xoolee ay ndongo daara la ñu génne entre huit et dix douze ans ñoo xam ne am amuñu sa carte euh, d'identité bi am carte électeur ay quelques personnes ñaar wala ñetti nit yu ñemewul nekk seen gannaaw pousse leen. ñoo ñan lañ. xam ngeen leen seen biir xam ngeen li xew barki démb ñun nous sommes en peu dañu campagne mouvement bi ñuy wax mouvement réccu ñoom ñoo ni carrément liggéey nañu ak président six mois kese ñoom dañoo nekk mouvement réccu président recevoir na leen xaw ma recevoir na leen xaw ma en tout cas ñoom ñoo ni carrément maa ngi taxaw liggéey nañu ak président six mois la fi amoon a woon ni président yul xaas boo xam ne ku yuux mu neexalee la ko daf ko def ci askan wi su fekkee ni bilan képp tax ñuy wax bilan gis ngeen mambe Mbaye bi fi ñëwé barki demb 100 millions la bàyyi fi pour jeunesse bi 100 millions la bàyyi pour jeunesse bi commencé na léegi gars jëss sen financement xamna ñu ko ragal a sax légui ñaan dañuy campagne motax xam nga dafa am lu am ba am suñu chef religieux yi fi nek mm-hmm. bu dee xam-xam kenn ëpp leen ko mm-hmm. bu dee jàng kenn ëpp leen ko kenn ëpp leen ko amna lo xamni réforme yi ñuy wax di ci laxas seen gannaaw opposition bi du yuuxu am na loo xam ne dara tuus lu tuuti rek loo xam ne da yàq diine bu ci amoon. Mm-hmm. ñoom ñoo koy jëkk a dénoncé. ah kilifa diine kay nag daje nañ ay. am na kuréel yi nga xam ne ñoom la sëñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu xam-xam yéen ñu ëpp xam-xam président ñu ëpp xam-xam ñu ëpp waa réew mi bokk nañ ci ñi nga xam tey jàng nañ fenn fa yor seen i lijaasa waaye bi ñu ko gëstoo ba gëstu ko neen fukki point juróom yi tënk maanaam soo demee ci téere ba koy yaatalee saraa mm-hmm. foofu lépp la fa nekk mooy luy dooleel ngóor jigéen la ak loo xamante ni bii laïcité bi da ngay dañuy day dëgër ba kenn dutu ko laalati kon laïcité dafa nekk ci réforme bi ñu ci dugal moom mooy lan niveau droit boobu dama ni la dama lay expliquer comme laïcité dafa nekk ci constitution bi ci réforme bi ah xaa da ngeen da ngeen da ngeen daw ah. hmm. man ab jullit laa loolu laa gëm hmm. dama koy pratiquer sama gëm-gëm la kii mi ngi tudd euh, par exemple Jean Pierre hmm. catholique la. Mm-hmm. am na lu mu gëm da koy pratiquer. am na ñoo xam ne sax gëmuñu sax yàlla. Mm-hmm. waaw loolu laïcité fi la ko Senghor bàyyi. Mm-hmm. file la ko Abdou Diouf bàyyi. Ablaye Wade bi fi la ko bàyyi Macky Sall di ko dindi. ñëw ko gën koo dëgëral. ma ba pare doole ci niveau droit niveau droit daal niveau droit amu ci. amu ci amu ci amu boo xam ne da ngeen koy yuuxu naa niveau droit niveau droit du lenn lu dul àqu ak yelleefu doomu aadama yow mën nga am sa tool. teg ko fële. Mhm. nit ñëw ëpp la doole daan nañ ko fi gis ñaata dëkk ñoo doon rayante fii. Mhm. ci ñu fa seen maam bàyyi loon suuf ñu yor ko ay promoteur jóge ci àll ba amaana ñu borom xaalis lañu amaana duñu ay sénégalais ñëw soxla suuf si ci état bu njëkk ba ñu jox leen ko jaay doole nit ñi loolu lañ bëgg mu dañ fi. waa Kanka kay ñu ngi wax ne waa Kanka beneen problème la muy ila ila ila mais dañoo yàkkamte rek. ndax ilaa ilaa Touba bi fi muy jaar ñoom ñëpp commencé na leen di dédommagé dañoo egseegu ci ñoom te bu soobee yàlla da leen di gis nañ ko télé c'est que man dama leen maa jaaxal waa kànk ngeen di wax mais ñi ñuy fay jox leen seen chèque pourtant télévision génn nañ ko duñ ko wax dafa mel ne finalement yëf doo xam lu muy nuru mais bàyyi ma tuuti ma wax la ci affaire yi président Macky Sall bi fi ñëwee mm-hmm. ñun ñu ngi ci terrain bi ñu nit ñu yiw nag di politique duñu dóor duñu xaste duñu saaga dañu ormal dëkk bi mais du ñu may nag benn doomu aadama wala ñaari doomi aadama ñëw bëgg a semer ci dëkk bi di wut ci dëkk bi mun ta nekk dañu liggéeyi yaa gis opposition boo xam ne danga koy gis fii mu nekk fi naan ñu am ay moyen laa wax de ndax PDS moom li ñu góoroon ba léegi ñu ngi ci. Mhm. seen xaalis baa ngi ba léegi jeexagul de ñu ngi ak ñoom loo gis ñu def ci xanaa opposition ñëw ñu jël ay innocent ay doomu jàmbur du jiital leen ci kanam. bàyyi seen doom yi tëdd France wala Espagne wala Amérique di jàng ñun doomu ay jàmbu jox leen ay 2000 francs ñu leen acca yu xoo leen président mais orma mayul président même bu fi deful woon dara te bu liggéey fi nag lu ñëpp mën a gis lépp mën cee sa seen bët ci wàllu bu nekk nag ci wàllu kër diine yëpp nag boo gisee li mu def ci Tiwaawan def ko suñu dëkk bi def ko ci yeneen dëkk ville religieuse yëpp kuy xeex diine doo ko def wala maa dégg naa ay affaire yu góor jigéen ak affaire mais anu point bu góor jigéen nekk ci teg ci ci quinze points yi dañoo yeb nit ñi yeb nit ñi la ñu def moo tax ñu taxaw di wax affaire ay borom ñaari tur yeeg jigéen ñoo xam ne mais loolu euh, constitution ko réglé woon bu yàgg acte contre nature acte contre nature mooy lan góor ak góor guy def la dul noonu jigéen ak jigéen du def la dul noonu loolu moom xaaruñu ba réforme bi di ko di ko wax loolu mi ngi constitution mi ngi koy réglé ñaata nit dañ ciy jàpp ci lu mel noonu dañoo amul argument xam nga lan la problème bi problème bi mooy seen yaakaar dafa tas ndax 2017 lañ doon xaar ay élection 2017 ñu bëgg ni président Macky Sall na violé constitution bi ñoom ñoo taxawoon fii le 23 juin jox asir ay pancarte ne touche pas à ma constitution ñu bëgg tey président Macky Sall gardien de la constitution touche constitution bi su ko naw def bëggee sax ñu duñ ko nangu. daanaka ñëw ci Touba. yéen yéen yéen seen problème mooy yéen ñëpp nee nañ yéen fi doon nii yéen ñi yéen yéen seen yéen waa affaire amu leen benn euh, euh, argument yu may dal ci kaw askan wi di xeex euh, recruter ay mbër jox leen ay ay yat ak fetal ñuy dal ci kaw nit ñi ba démb 28 yow yaakaar naa oto ba nga nekkoon sax yow dañ naa dañ laa mujj rawale da ngaa daw. loolu demeewul noonu nit ñi dañuy wax rek oto bi ñu dugg dafa am benn oto bu ko mbëkk bi mu ko man duma daw du ànd ak kuy daw. dégg daal ak sa kol ak yëpp jotoo ko def. <laughs> loolu moo ko déggee arrêté daf may jàpp sax ndax oto bi. Mhm. dañ ko dañ dañ dañ ko mbëkk. parachoc la xawma pono bi wàcc mëntu la daw bi mënulee daw ñun ñu bañ convoi bi rëcc ñu ñu wàcc jël taxi bàyyi fa chauffeur ba mu taxaw léegi nag ñoom nag ñoo wadd dem ci ko oto bi ko oto bi mënatu la daw gisoo fa benn oto bu taxaw ñu duñ daw ko oto bi mënatu dem. ñoom ñu jël ñoom ñu ñu ñoom ñu wàcc jël oto bi saccagé ko saccagé ko ba mu yàqu yaxet oto baa ngi doon moo nekk internet bi lu ne nañu ko ciy wax mais kenn mënu cee wax loo xam ne man waxuma ko man mu nekkoon ci oto bi. Hmm. bal fetal yi ñu yéen yéen seen kaw ñu yéen ko tiire ba bal yi ñu bëri bari for nañ ko mi ci internet bi loolu loolu loolu tam est-ce que ak tom mm. am ba mu amee soxna si digganteem ak jumaa ji nga xamante ni bii zéro mètre loolu yëkk na jaaru na tey ci ñu ni ñu man bi ma xëyee damaa damaa gàcce woo tey nii ndax yéenekaay yëpp yëpp cay ci Touba Cissé Lo ak àndal ak waa euh, mouvement réccu ci wetu ci wetu jumaa ji liñ ko waxee demeewul noonu man su ma neexoon dugg sama ne génnee ba tàllal la ko su ma neexoon dugg fii léegi jigéen laa nag mais je suis bien armée suma nekhon genn leg ay bal jox la talal ni mi ngi ci bal yaangi ni nii ken kenn mënu ko wedd tay bal yu tiré paré pare yu tiré tiiree dama lay ah kay waaw suma ma ramass ay bal yu tiré ba pare kula wax ban xamna ni bal ay bal ngi ni mais est-ce que réellement non la démé bo leen laajee camp bi da ngeen laaj benen camp ba xamna la démé nous sommes en politique nous sommes en campagne électorale ñu ormal dëkk bi lañu mais ni ay nit taxaw sur terrasse. mais wax di avant avant avant avant euh, démb barki C'est autre bu non bi cortège bi cortège pourtant ñi ko fekkee war nañu de bi bu kenn dugg ci cantine comme nous kon dina métti kon bakkan dina fa tëdd mais ku tiire lu mat bal maa ngi de presse bi naan seize ñu yor mais ah, est ce que am na ci blessé c' est c' est ça c' est là le problème gis ngeen fa ku ku ñu dem tànkam am ñu koy doon tiire kon du ñuy góor bu fekkee seize coups la na leen woon kenn ku boppam toj ni kii fital la ko laal wala dara il faut ñu arrêté yi wax mu ñuy intoxiqué euh, euh, référendum bi ni lii ak lii la loolu jàll est que xam nga référendum bi seen këyitu bopp lañ yor di ko distribuer nit ñi loolu wax leen ci ay këyit la ñu jël transformé affaire bi di ko distribuer nit ñi ñu jàngul dégg ngeen réunion bi ñu defoon euh, kër de Croix wax fa lañ fay wax changer carrément yëf yi distribuer ko nit ñi mais loolu la nit ñi war a yeewu ñun ñii defuñu bay ànd ak ku ku yoo xam ne dafay naan day day daganal yenn yi. waxuma la sax euh, Touba mais Sénégal ñu ay responsable lañu ay kilifa lañu nag am na loo xam ne ñu ko nangu doomu aadama li fi nekk kay mooy li ma la wax rek seen yaakaar tas si 2017 bi ñun duñ lekk cere ji nañu si xëpp suuf. waaye yéen a président jox na leen ay moyens yu doy. Hmm? yéen a ngi xaalis tubaarkàlla macha allah millions yi dugg na jox na leen ay oto jox na leen matuwaay yi ngeen war a campagne hmm. est-ce que demoon ci askan wi ne ci banlieue Touba bi euh, saam fa mu gën ak yeneen dëkk yi wër fii ngeen campagne foofu nit ñi Euh, président ñu wateel ko gënte na nekk ci 28 bi nga xam kenn nekku fa di tiirantey balak yooyu ñun suñu campagne xaaruñu maa la koy wax sànq xaaruñu ba président ñu ñu koy campagne ñun ñu ngi porta à de mais caravane dafa baaxoo ci ci ci ci campagne ndax dafay am tuuti ambiance mais yaakaar yaakaaruñu ci caravane rek pour dem man ñi may jëflanteel ci wàllu développement samay mbokk deret samay mbokk yu ween samay am di jàmm dem naa si ñoom waxtaan ak ñoom dem na euh, marché bu tas dem naa Daaru karin dem naa fa nu mu tuddati euh, Ngiraaneen dugg naa ci kër yi porte à porte di wax ak nit ñi. Daaru Karim nag moom soo fa demee su la fa am Cheikh Yaba ju fekkee moom yaa ko tooñ. loolu kë loolu moom ab sonam la moom. ami ami amee Cheikh Yaba ñoo bokk politique benn bokk yaakaar la mais dama fa am samay mbokki bopp yoo xam ne yu taxoo Kajoor nekk fa. ñoo bokk ñoo bokk di campagne man ak moom. da a laaxtu moo tax ngeen di dem foofu di man nag déglul déglul ma wax la nag man député yi ci dëkk bi rek ñu ngi may dégg de du ma laaxatu ci kenn baas parce que ma saa yu ma xëyee sama askan gis ma saa yu ma xëyee jëflante ak ñoom di leen wutal ay formation loo xam ne gis ma kenn député bu ko fi def nag ñun ñëpp nag benn boo ko yaakaar la ñu nekk dañuy wàcc ci base bi ñoom it loolu moom mooy defoo bi dañoo nekk ci campagne nag mais ñoom bu xaarati ba soxla militant yi soog dem ci ñoom liggéeyu président Macky Sall loolu rek a tax nit ñi bañ ñu président Macky Sall ñu ngi liggéey bu wér li mu mën nañu ko def ci Touba mais ñi mu dénk ay responsabilité bu ñu xaarati ba campagne jot ñu dem ci nit ñi nañuy dem ci nit ñi heure bu leen nit ñi soxlaa nañu gis seen wet nañu dem ci ngénte yi mardi taal dem ci dëj yi di dem ci xew jàmm di dem ci xew leneen bu ñu gisee dara loo xam ne am na importance xam ne mën na indil dara dëkk bi dara ñëw indil leen ko wante nag doon député rek am sa kër luy sa kër Dakar tëdd fa dum la gis am na député yoo xam ne un an gi kenn tegu len bët yow yaangi dem ci manifestation yi suñu formation bi gis nga ko ya fa gis ben député bu fa teew yu jigéen ñi la wax nak sama nawlay ya fa gis gisoo ko fi giso fi ben manifestation 8 mars da wala leneen wala leneen yo xam nga fi gis ki lolou jigéen dootul nangoti jigéen lolou loolu dul nang ku melni man dootu ko nangooti. lan ngeen naa ko. liggéey di and ak askan yi liggéey bu falu jotté ñu taxaw falu. lu nangu na ko xam ne laa fal ba pare nga dem fee toog bu fal jotee ngay laaj baat baat bi déedéet ñu nekk terrain bi lu ko liggéey kon daal daa mel ni yow yow sa bët sax euh, romb euh, yi yaa ngi yaa ngi waajal législative. laa ilaaha illallaah lu ëpp législative sax lu ma lu ndomba tànk di may bëgg naa ko ndax it nag am naa compétence yi am naa compétence ci wàll gu nekk nag am naa ko mais nag li ma koy may dama koy def ndànk-ndànk di liggéeyandoog nit ñi xam nga mooy sama euh, cat. damaa yeex am digal dugg ci politique man ci politique ci laa juddu ci laa màgg ci laa yaru balu fi tal yi ngay wax ni ci daw ci tal ci mbedd yi ñun sunu kër ngaay sama bàpp nekk na 12 ans maire ay balu fi tal sunu kër la daan tàkkee ñun ci biir kër gi hmm. xam naa politique mais lu ndigal àndul bëgguma ko 2012 laa commencé yëngatu ci laa am ndigal est-ce que xam nga man may yóbbu dem APR kenn yóbbuwuma fa opposition laa nekkoon pendant un an nag bi ma gisee président di liggéey ma xamni man limay def sama combat moy combat jigéen ñi mi ngi sagal jigéen ñi mi ngi liggéeyal jigéen ñi man ne man lumay may def ci opposition keroog ba muy démissionné man kenn jël siwu ma ba may démissionné néew ma kenn maa ngi dem démissionné ji dama démissionné dem di liggéey sama liggéey kon di liggéey sama liggéey ba li fi fekk fekk ma fi. xam naa waxtu yi mi ngi jeex. waaye li ñu bëggoon a xam rek mooy tey yow est-ce que am ngeen yaakaar dimanche ci ngoon wala lundi ci suba gi vie gagné Touba loolu est-ce que yow sa xel xalaat. yaakaar gu wér lañ ko am. bu fekkee dëgg da kay dëgg mhm. ñu basé ko ci réforme bi rek kese kese kese mhm. waxuma la wii Touba mais massivement dañ ko am bi xam nga li ma jaaxal mooy euh, experts yi xalaat yëpp yëpp yëpp dañu ni gagné nañ fépp waaye fu yor fu mel ni Bambey jaar Diourbel Mbacke Touba moom président sondage yëpp yëpp yëpp dañ ko fee gagné yéen loolu tiitalu leen ngeen yaakaar kuy tiit néewul APR tiit. Ah, ak mooy président xëpp yëpp yëpp su leen gañee. yan conséquences la def ci yéen. yéen euh, boobu yéen a ngi koy xalaat. gañe gi moom yaakaaruma ko. Hmm. noo bi gañe wii. Hmm. ndax wii bi mooy dëgg. ni wii nekkee dëgg. xam nga wii mooy waaw. Hmm. mooy dëgg ni wii nekkee dëgg. wii noo mun koo gañe surtout fii à Touba. Euh, def ak sa mbooloo mi bisu élection yi. ànd ak ñoom jiital la ñu voté ji wii ma ñibbisi waat toog sama kër. di xaar résultat yi. xanaa sax na da nga leen wax moom non violence sax bis ba. moom violence ñu duñ ko prôné ñun nit jàmm lañu président Macky Sall xamul violence kuy ànd moom xamul violence président Macky Sall ak violence mës nga koo dégg te ci ndigal lay woy. waaye ñu toog ci ginnaawam kay lañuy wax waaye moom moom. dama lay expliquer mooy suñu leader ci moom la ñuy xool mais nag ku ñu bëgg faa faa faa faagal sa bakkan da nga jóg taxaw yow mii képp tey boo taxawoon fi nit fekk la fi yat wee ngay séen nii di ko gàddu jóg taxaw. Ah, ni du défendre bopam ah, mbeuri yi ngeen jël ngeen wara ban ak soxna ci ay mbeur seen cortège fu mu ne mbër du jeex ak yi nek yori jaas yori lu nek xam nga défense fi lañ ko fekk mais ñun jëruñu ay innocent ay doomu jambru ay ay mineur di len fay naan taxaw le ci tali bi ngeen nan non non non non amul defuñu ko ñun doñu dégg mukk ñu taxaw fekk cortège non non di jall ñu taxaw dañ naan wii wii suñu liggéey dañu liggéey kat maanaam wii nekk fii euh, ci seen kuréel bi jàppale Macky Sall hmm. ñoom nee nañ yéen politiciens yi lu fi Macky ñàkk rek yéen a koo xañ ndax d dem leen ci askan wi xuloo askan wi ngeen fi nekkee rek waaye waaye loolu maaraay wax ñoom loolu wax nañu ko démb nee yi moom maaraay moonte maaraay jox na leen ay moyens yu mat sëkk de ah, ñoom kay ñi ngi ñi ngi ñi ngi def seen i karawaan ngi liggéey di gisaguma leen ci terrain bi de te man oh, déedéet te man maa ngi nii gis nga ma bi ma yaa ma fi tax a toog

am na benn ministre de la république bu fi nekk mu ngi jox nit ñi mooy ay otom la gisee ci campagne bi ku nekk nga xam ne du politicien ministre de la république mais li mu mën mi ngi koy def ak ñeneen ak ñeneen parce que xam nañ doomu soxna la dara dara lu doon yàq dina àndee àndoon euh, ci réforme xalaatu koo voté. looy tàggatoo mbokk yi waxtu yu jeex a tàgg li may tàggatook sama mbokk yi mi sama mbokk yi may àndal ay mbokk jigéen yi. Hmm. sama jeunes yi sama mag ñi may àndal bu la vingt jotee. Nous ñëpp suba du kenn ndékkee sa kër ñoom ñëpp ñu dem ku nekk bureau de vote nga voté ji Nous tranquillement di si sa kër toog bu ñu tontu ku leen di saaga bu leen tontu ku leen di provoqué ndax opposition bi amuñu argument lu de vote bi dong ñu bëgg ne bureau de vote loolu nag duñu leen ko may dinañu voté ba ñu xam ne bi dem massivement le 20 à 18 heures wala 17 heures ñu programmé pour une première fois pour une première fois à Touba ñu am plus de quatre pour cent sinon quatre-vingt-dix pour cent de euh, de oui ici à Touba waaw bu baax gërëm madame Mbacké euh, ci euh, l'air yooyu nga xamante ni Andanton, dit euh, l'air di leeralante ak askan wi mu mel ni leeral na lu bëree mu journaliste rek moi, suñu dégloo camp bi déglu camp bee lépp mën a su ko askan def analyse kenn ku ci nekk xam la nga ngay kon mi ngi noonu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu fekk soon ko fii euh, tey ci kërëm ci Touba daaru Marnaan doon sekk ak moom euh, jataay bi nga xamante ni moom la def jëm ci wàllu campagne yi taxawaay bi nga xam ne président am na ko bi mu fi ñëwee ak askanu Touba itam bët bi nga xam ñu ngi koy xoolee politiciens Touba lépp lu rek mel na ni waxtaan nañ ci kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci occasion bi ñu may tey man ñoo leeralal euh, leeral yu am solo yooyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant itam Serigne Mbacke Dieng suñu caméraman bi nga xam ne moom lañ feggooloon di sant mboolem ñi nga xam ñu ngi bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew fu ci nekk waaye nekk rek ñu ngi la fekk di la ndokkeel baax a baax ndax seen kóolute mooy suñu sàkk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.